Pape Birama Diallo ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Bamba. yow yaay chef département dialogue social négociation collective bu UNSAS juin 2024 li jëm ci contrat concession bu Dakar Nav daanaka dina arrêté li ni mel itam indi njàkkare ci ñi nga xam ni ñoo di liggéeykat yu nekk foofule euh, dossier bi fan la toll tey. contrat bi sur la forme dina arrêté contrat ak li ñaari parti mais chantier bi du arrêté chantier bi moom day continuer di fonctionner te liggéeykat yi tamit ñu nekk foofu waruñu am benn njàqare ni affaire bi day continuer maintenant day continuer ak euh, maanaam employeur bi fi nekk ak léegi wala day am changement d'opérateur donc voilà mooy question bi ñu posé mais bu amee changement d'opérateur est-ce que avantage yi ak yéeg yëpp wala sax dañuy wax amélioration mu yokk loolu la ñuy xaar mais waruñu gis ni euh, am na changement opérateur opérateur bu ñëw tamit da ngay def loola neex te loolu tamit duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg donc loolu il faut que mu leer opérateur bu mën a ñëw tamit da ngay nangu euh, conserver consolider li fi nekk boo ko yokkul doo ko wàññi loolu mooy première condition deuxième condition bi mooy bëgg nañu état bi tamit mu associer liggéeykat yi représentant liggéeykat yi ci waxtaan bi mooy dem ci lu mel ni réforme wala changement buy intervenir ci secteur yoo xam ni ta ci boppam lu ñuy wax euh, service public moom moo ko yore moo koy gérer ah depuis dans la fin des années quatre dix lu ñu remarqué avec la première inter alternance et la deuxième alternance ona a toujours associé les travailleurs dans les discussions les changements d'opérateurs les travailleurs sont associés à la discussion négociation bi liggéeykat yi dañ ciy bokk boo demee euh, seen o liggéeykat yi dañu bokk ci négociation yi foo dem boo demee Sonatel liggéeykat yi boo demee euh, au niveau de la Sénélec liggéeykat yi dañuy bokk ci négociation boo demee SAR liggéeykat yi dañ ciy bokk boo demee Sonacos liggéeykat yi dañ ciy bokk boo demee chemin de fer liggéeykat yi dañ ciy bokk mais fii rek laa gis secteur bi rek laa gis ni mais associé wuñ ci liggéeykat yi lu waral lool pourquoi parce que simplement yaa benn entreprise bu nekk ci biir ci diggante bi CERN buy jouer rôle tampon interface entre l'État parce que moom délégataire de service public la war a nekk mais gis nañu délégataire de service public dafa muté statutam statutam daf ko société anonyme euh, à participation majorité publique mais bu boobaa loolu yoon dafa wax ni génn na ci autorité contractante buy contracté contrat ak un privé mënatu ko def bu dee changement de statut boobu am na parce que changement de statut liir nañu gis nañu euh, ci biir site bi ni c'est mué en société anonyme à participation majoritaire publique kon yoon def ni kooku amatul statut moom pour def passation de marché public mën a def marché nag de droit privé donc loolu lu ñu remarqué la moo tax euh, li nga xam ne mooy gàllankoor bi yëpp mu ngi jóge ci euh, situation boobu dafa clair il faut que ñu clarifier les statuts de la CIRN. léegi lan moo ci position état dëgg ci situation bi. waaw état dañ ko dañ ko euh, xawoon induire en erreur du xaw sax dañ ko induire en erreur. parce que ñoom bu ñu bëggee attaquer marché bi dindi ko dindi ci loxo rocc ci loxo employeur bu fi nekk quel qu'en soit la nationalité man du ma stigmatiser quoi ngay ni parce que les Sénégalais son partout dans le monde à travers le monde ils sont nombreux au Portugal ils sont en Allemagne ils sont partout du may stigmatiser et on dans un monde euh, planétaire euh, la globalisation des échanges foofu qu'on fasse très attention ci mooy ñu moytu di dugg ci yenn considération yi damani ni euh, état du Sénégal dañ ko induire en def benn audit audit technique bu Dakarnave épingle ko ci ay yenn manquement ay dysfonctionnement ndaam am na bu amee sax dañuy wax ni corriger lii mais audit dafay nekk de façon périodique mais bu ñu fàtte ni euh, entreprise bi tamit dañ ko labelliser ba pare mu am ay no ay ay euh, aujourd'hui ay normes yu mu yu mu respecté sur le plan international moo tax bateau yi di ñëw fii navire yi ñëw fii moom bu amul woon bu kiiwuloon ci ci norme boobu agréé wuñ ko woon ci norme yooyu benn bato du ñëw fii benn navire du ñëw fii tey jii boo demee port bi yu bato yi ñëw foofu en réparation kenn xamul mu toll dañu bari donc entreprise bi mi ngi dox mu ngi dugg ci suñu koom mi ngi dem ci liggéeykat yi donc c'est important ñu war a xool loolu balay def ay erreur changement pour changer ah lu ñu discuter rek négocier mais nañu woo liggéeykat yi ñoom tamit am nañu seen mot à dire ñu waxtaan ba trouver la meilleure solution. cela ne s'arrête pas à que kii toppal ma le Sénégal est reconnaissant parce que munoo fi nekk vingt cinq ans ñu bañoon kenn bëggul woon jël chantier bi benn opérateur rek moo nangu woon jël chantier bi en 1999 wër nañu def nañu appel d'offre internet kenn amul kenn sax ku postuler lu dul ñoom ñu jox leen ko ñuy liggéey ba affaire bi tey suqali ko nu mu toll nii nga naan damay wañ seen loxo dindi leen sànni leen sepp leen fan kon man je ne retrouve plus mon pays. Ah, lan mooy tey sàkkuteefu liggéeykat yi. liggéeykat yi dañu bëgg. ah yokk tamit ñu bëgg de liggéeykat yi nañu bëgg a yokk am nañu benn projet bu ñu dugal ñu ne leen ah comme gouvernement bi dafa envoyé lettre de préavis woon ne transition la ñu nekk te transition mooy lépp dawee arrêté quoi ba ñu renouveler donc mënu am négociation tant que période bi passé wuñ ko ba ñu renouveler contrat bi projet bi nag d'accord d'établissement élaboré nañ ko def nañu ay simulation xayma yi xam nañu ñaata la travailleur demandé presque trois cent pour cent d'augmentation en matière salaire régime indemnitaire yëpp ci biir waa ji nee na bañu moom mais mën na nekk mais il faut que ñu passé cap bi bu ñu ko bu ñu renouveler contrat bi j'engage donc sama responsabilité on va aller vers cette direction loolu am na beneen bi mooy actionnariat xam nga léegi jamono dafa changé léegi euh, liggéeykat yi dañ leen di intéressé o capital dañuy bokk ci action yi mu ñu amee sax lu néew nu mu mën a am mais ñu am présence ci biir conseil d' administration yi di fekk fa ñuy décider jamono moo changé il faut que liggéeykat yi tamit ñu associé leen ci loolu. te loolu lu mën a nekk la. dafay nekk na sax parce que loolu am na ci contrat bu njëkk bi lu may wax ni peut-être dañu amoon retard. ci euh, discussion wala avance wala crise de leadership syndical moo amul ci biir Dakar Naaf parce que liggéeykat yi peut-être amuñu woon niveau benn certain niveau pour aller au fond des choses pour mën a dem jëli ji Jëboka moo ñu ko waxoon en 2004 mu ne action yi mi ngi fii mais liggéeykat yi la xaar même bu dee 3 pour cent da ngay def un montage pour mën a dem jëli ji action alors ci geneen wàll gi bokk na ci élection de représentativité centrale syndicale yi nga xam ni weesu nañ ko eh, yéen seen organisation moo jëloon ñaareelu position bi ni mel waaye boobaak léegi eh, lan lañ ci mën a jàpp ci ak ak yelleef yi nga xam ne ñoo di travailleurs yi. waaw euh, ñu ngi ñu ngi xayma def évaluation taxaw seetlu maanaam euh, après résultat yi après 2023 on est en janvier. Oui. donc évaluation bi parewul ñu ngi ci convoqué nañu sax semaine prochaine benn instance d'évaluation pour xool jàngataat mbir yi quoi fi mu jaar ak lan moo ci euh, gallo gàllankoor ak lan moo ci ay avancé loolu il faut ñu jàngat am jàngat boobu bu ci paree effectivement dina am ay recommandation liggéeykat yi seen i revendication taxawaay bi ci centrale bi war a am yooyu yëpp dañ ko ci jàng bu ba bu paree nag ñu def suñu benn plateforme boo xam ne dañ ko mémorandum ak plateforme boo xam ne dañ koy déposer mu nekk nag base boo xam ne dañ ko war a di discuter ak njaatige ak gouvernement am nañu yaakaar nag euh, fii ak euh, ay fan yu néew président de la république war na recevoir centrale syndicale yi cadre yi nga xam ne daal ñun bind nañ ko pour demander ko rencontre pour mën a euh, waxtaan ak moom ah mi ngi fin de mandat waaye nag wax naa ni président sànq ci kàllaama français président bu am écoute la day déglu liggéeykat yi ah chaque fois kana nag Moussa am daje ak centrale syndicale yi andi na saafara ci ponk yu bari ñu ngi koy xaar nag ah ci wàllu googu tamit li des avant mandaa bi di jeex mandat am di jeex góor la góor def na lu mu war a def am na ay résultats yu yu propice ñëpp gis nañu lu mu taxawee waaye am na loo xam ne tamit war na ko saafara avant muy dem muy tàggatoo ak mbooloo waa am na ay secteurs yoo xam ni euh, ñu ngi ñu ngi ñaxtu ba léegi boo demee santé les contractuels de la santé ñu ngi ñaxtu seen euh, régime indemnitaire boobu ñu war leen ko jox aligné leen te nuñ ko joxe ñeneen agent euh, yu nekk ci fonction publique secteur public bi yépp am nañ ci droit beneen bi mooy problème bi nga xam ni secteur euh, primaire bi tamit ñu ngi koy jooytu ñu mën leen aligné ñoom it am nañ ci droit collectivité territorial war nañu dépasser situation bi ñu nekk jëm ci justice nag ñu war a appliquer li nga xam ne accord la woon bu ñu amoon ak gouvernement bi. mi ngi foofu. waaw ah oui foofu bi kenn xamul na dégg naa sax mu sànni leen benn flèche ne leen ñaata plan d'action ngeen toll mu wax euh, notre camarade ay na koy ci ñaata plan d'action ngeen toll kon président de la république xam na problème bi kon jot jot na mu woote ñu mettre un terme à pour satisfaire la revendication des travailleurs. Mm-hmm. laaj bi mujj bi bokk na moo jëm ci grève bi nga xam ni amaloon na ko daanaka atmosphère bu metti moo amoon ci diggante liggéeykat yeeg institution bi ni mel ba am ci sax ñi ni xam ni euh, dàq nañ leen ci euh, boobaak léegi nag dégguñu syndicalistes yi ñu àddu ci fan ngeen ci toll. waaw ñu ngi ci dox sunu sunu wàll sunu laaj. rencontré nañu direction capital humain rencontré collège de délégués xaaru ñu wax ñu ñii ci ñun la ñu bokk la bokk ñu ci ñun defuñu tamit de la récupération defuñu tamit récupération dañ ni te élection yi passé am na 44 yu ñu woteel donc ci nombre bu wote foofu bu dee ay cent et quelques ñoo voté 44 yu voté nañu pour ñun mais ñun xaaruñu ci loolu sax dañu wax ni défense des intérêts des travailleurs te yamaluñ ko rek ci liggéeykat yi nga xam ni dafa ñu nekk membre sunu central mais fépp koo xam ne liggéeykat mu nga fay am problème war nañ fa mën taxaw du loo xam ne dañuy taxaw nag ci presse yooyu di ko jàmbaarloog di wax ak yooyu mais lu ñuy dox la te yàgg nañ ko def rencontre nañu waxtaan nañu am nañu yaakaar ni waxtaan bi dinañ ko ubbi yaatal ko ci résidus au conseil dialogue social parce que waxtaan naa ci ak présidente bi démb rek moom yëg na sunu dem boobu ñu dem foofu yëg na ni ma dem ba tamit direction bi dina ko recevoir mais dañu wax ni yëpp yi fu muy sottee yëpp mooy au conseil la ñuy daje ñun ñëpp ñu toog bokk waxtaan trouver une solution durable saafara dina ci am ndax ñoom ñu ngi wax plan d'action waaw saafara mais liggéeykat yi tamit il faut que ñoom ñu xaw a taxaw tuuti waaw leen loolu bu ñu ñaanee direction bi mu arrêté sanction yi ñu ñaan liggéeykat yi tamit ñu wàññi seen xadar tuuti ñu mën a boole ñaari parti yëpp parce que bu waxtaan amul rek du solution du am. Pape a jàlloo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf maa ngi lay remercier Mbemba.